mu ne euh, vers cinq heures du matin la accident bi am fii waaye rek euh, lu ko occasionné mooy mbaam bi moo doon traversé euh, camion bi di jóge nee di ñëw beneen njegenjaay bi di jóge nee di ñëw ñoom ñaa ñëpp di ko moytu ba far nag mbëkkante comme niñ koy waxee collision donc nag mam bi nag moom tamit dafa mujj rek décédé comme ni ngeen koy gisee nii si image yi góor gi mun nga dem si beneen côté bi nga jël ko wan ko internet yi ñu xam exactement euh, information bu leer te wóor bi nga xamante ne moom la Sénégal ak kawteef am fii si Sakal gis ngeen mbaam bi moo doon jéggi far yàlla nag comme fii àll la donc mala yi dañuy faral di traverser amuñu heure amuñu minute amuñu seconde buñ ko bëggee la traverser donc nag mu ngi nii ñoom moom muy traverser camion bi di jugee na le Ndiaga Ndiaye bi jugee de l'autre sens ñoom na ñu mbëkkante moom mi mbaam bi occasionné accident bi sax moom tamit daf see mujj décédé donc nag mu doon mbir boo xamante ne mbir bi doy waar la te bu ñu fàttalikoo fan yi rek si ginnaaw état jëloon na ay mesures si accident accident bi nga xamante ne yàggul dara amoon na bu métti métti métti occasionné vingt neuf morts bu mujj gi sax euh, am ay blessés yi nga xamante dañ see mujj ñàkk seen bakkan